asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ak taalibe yi tey nag ñoo ngi teew fii ci kanamu Cheikh Mouhamadul Basir moom Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yore porte parole xalifa sénéral kullu murit ñu teew fii nag ci kanamam ngir ndigal loo xam ne ma ngi bàyyikoo ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jaarale woon ko ci moom ngir waa fédération bu Touba Espagne ndigal loolu lañu sëriñ bi di jottali. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi ridwani wa tamkin bokk jullit yi bokk taalibe yi bokk taalibe yi murid yëpp rawatina yenn waa fédération Espagne ñi nga xam ne ñooy dëkkee Espagne ak li ko wër ñu ngi yëkkate suñu kàddu ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu si Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ba li bëggee liggéey lislaam liggéeyal ko Serigne Touba ci toolu lislaam bi suñ borom mooy ko kàttan ak wér bu mu àggale ko. kon kàddu yi li ci jiitu mooy kàddu yu cant ak ngërëm muy kàddu yoo xam ne wax na leen ko ci kàddoom ngeen dégg mooy liggéey bi nga xam ne yàlla def na mu joxoon leen ko muy li jëmoon ci tapp yi nga xam ne jëmoon na ci jumaay Tuuba te mu doon loo xam ne xalaatu boppam mooy itam te ku fi nekk Sëriñ Tuuba lu mu xalaat te kenn waxu ko loolu moom lu jóge ci Sëriñ Tuuba la yàlla def na xalaatu boppam moo ko xalaat na ko xalaati woon rek Serigne Touba fekk si na ko ci ndax dafa waxoon ne seen pësteef ak xam gi leen xam ak yaakaar gi ñu am ci yéen gëm na ne bu ngeen ko defee bu leen ko waxee den ko def ndax daa jikkoon wax ne sax daleen leen koy boole waa Italie ma ne ko nag yaakaar ne ëpp na ci ma ne kon daal Espagne laa xalaat ne naa leen ko jox kon loolu xalaatu boppam na ko na ko waxee woon defe ngeen ko kon sant leen ci kàddu cant ak ngërëm. muy loo xam ne àdduna sépp dégg nañ ko ta damay faral di fàttali rek moom Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ci ni ko ñëpp xamee rek ci attawaadoo waxoon na ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak ak Cheikh Sidi Moukhtar ku ci ne yëkkati woon na kàddoom ci sa kanam wax la ne sa ñaari baat yi nga wax moo gën suñ junni baat waaye kon cant gam leen cant rek jëruñu di ci dolliwaat dala wala lu ci dolliwaat lu ci nuru dolli ko rek a ak woyofal lay doon ndax kàddoom bi rek mooy li am solo ndax moo jóge ci sëriñ bi kon mi ngi leen di sant di leen gërëm ci la weesu ndigal lii mu leen waxaat keroog itam te boolewaat leen ak man mooy li jëm ci li ñu war a yeesal ci kër Sëriñ Tuubaa gii nekk Daaru Manaan nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad moo naaloon pàkk bi bàyyi ko fi bi mu fi def gaaraas bi as Sëriñ Saliou Mbacke yàlla def moo ko miiroon ba woon liggéey bañ tàmbali liggéey ba Cheikh Sidi Moussa na ñëw àggale bâtiment def fa yeneen bâtiment ba sanc kër gi ba ubbi ko yàlla def mu am ay kilifa yu mu fa santoon ay liggéey yoo xam ne yi cëpp àgg na Cheikh Mouhamadou Mountakha amoon fa naalawu boppam boo xam ne moo ko fa waroon defee boppam comme noo ko fa kilifaam yi waroon def keroog ba ngeen jébbale seen rek mu gis seen yitteeg seen taxawaay ak seen passif mu far wax ne sama liggéey ak seenub liggéey benn la kon li ma ci waroon def ba war koo génne def ko génn ko ci addiyee ko suñ euh, taalibe Serigne Touba jox jël na ko tàbbalaat ko joxaat leen ndigal la wax leen ko ngir di bool leen rek man kon incha allah itam ni ñu ko joxe ndigal parce que nañ ko yéene ànd ak ba liggéey ba sotti ba ngeen jébbal ko ko te xaaraat leen ndigal ndax murid moom rek Cheikh Abdou Lahad Mbacké daa wax rek murid du wàcc euh, wa'bud rabbaka hattaa yaatiyaka al-yaqiin mooy jaamu yàlla liggéey Sëriñ Tuubaa rek mooy jaamu yàlla kon amul wàcc lu jeexal leen ak wasalaamaaleykum wa rahmatullah aousu billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakat seexul xadim ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu fédération bu Touba Espagne gi yëpp di nuyu sëriñ ba Bassirou mi toog di ñaan su borom yàggal ko fi loolu te wér noonu lañ koy ñaanal Cheikh Amadou Mountakha su yàggal ko fi loolu te wér ñu santaat yàlla bu baax heure bi daaw lan toogoon fii mu yëkkati woon ndigal jox ñu muy lu jëmoon ci jumaa ji te bam ñu koy wax it dafa wax ne liggéey la boo xam ne maa ko xoolal sama bopp ba jox leen ko ngir xam ne su ma leen ko joxee dangeen ko def sant nañ ci yàlla nag ndax lii sëriñ ba Bassirou wax ne sëriñ bi sant na leen ci kon loolu leen delluwaat santaat ci yàlla bu baax ci liggéey boobu jàll. mu yëkkatiwaat liggéey boo xam ne keroog ba mu ñu koy jox ñëpp a ngi toog sëriñ bi wax ne. liggéey bii ma leen di jox de dafa maa ñor xom ni ma liggéey bii ma leen joxoon mu ko di ñore te muy lu ma waroon a jëfal sama bopp te ngeen doy ma ci kon loolu sëñ bi fedd liwaat na ko kon nag ñun waa Espagne nan santal yàlla bu baax xam ne am nañ aw sas ndax ki fi toogal sëriñ Tuubaa de bu am xelam dajee ci ñun ba mu yëkkati ay liggéey di ñu ko jox ba liggéey ba àgg mu yëkkatiwaat beneen liggéey ci jataay bi mu toog joxaat ñu ko war noo sant yàlla bu baax kon ñoo ngi yëkkal sunu kàddu di sonni sunu bopp di soññi jëwriñ yëpp ñu takkuwaat xam ne kat takkoo ngi door a jot liñ weesu lépp nañ xam ne lii ñu mal fi leen mën a gën a jàpp liggéey Sëriñ Tuubaa bi loolu nag ñoo ngi yëkkati suñu kàddu di soññi jëwriñ yëpp kenn ku si nekk nga soññi sa ñooñ xam ne liggéey bi ñu sëriñ bi jox liggéey bu ko ñor xomb la nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ba li nga xam ne moom lañ tobbee ci ay sas kenn ku si nekk nga sonni ko sa ñooñ ñu taxawu ci balaa màggal gee bâtiment bii nga xam ne wax na ne daf ko yittewoo balaa màggal gee ñu mën ko koo jébbal sumb yi ci des ba balaa déwéne ñu mën koo jébbal yépp ni ko jébbale woon mu yi kon ñoo ngi sànni waa Espagne gi yépp góor ak jigéen ku gis jataay bi da nga war a xam ne lépp loo xam ne rëccoon na la ci tàpp yi jëmoon ci jumaa ji amul fenn foo ko mën a dabuwaate ci fudul ci liggéeyu Seex Muntaxa bii mu ñu jox muy lu jëm ci euh, kër gi nga xam ne moo nekk kër Daaru kon ñoo ngi soññ ñëpp di ci séentu ñëpp nag soññi jëwriñ yëpp ñoo ngi jégg ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu